remercier euh, babakan ñun euh, ni ñu ko jàngate mooy dafa nekk loo xam ne lii lu am solo la en tant que ay éleveurs yu ñu doon parce que affaire bi yemul rek ci pour régler problème tabaski mais dafa dem yóbbaale aussi tamit amélioration de performance de la race euh, ovine parce que jur ya nga xam ne moom la ñu yore mooy xar yi xar yi ay xaru pël-pël la kon loo yooyu soxla nañu ay croissement nga xam ne aussi dana am dana nekk race yoo xamante ni dafa yokku beneen bi aussi mooy que euh, ni Sénégal bindoo léegi xam nga réew mi dafa commencé xat bu baax parce que pastoralisme bi aussi dafa commencé di wàññeeku euh, ci ñaar mooy suuf si dafa wàññeeku espace yi dafa wàññeeku ñaareel bi dañoo am problème alimentation ñetteel bi aussi. Euh, ñetteel bi aussi tamit euh, dafa am problème euh, yoo xamante ni euh, fokk éleveurs yi ñu amaat xalaat yu bees yu ànd ak jamono loolu moo tax at yi gis nañu ne am na changement parce que benn jur gi yokku na mais ñaareel bi aussi tamit nekk na ay qualité jur yoo xamante ni pour bu tabaski jotee loolu dana mën a nekk euh, ndimbal pour ñi nga xam ne dañuy tabaski euh, déedéet euh, xam nga bokkala comme ñun ñooy sàmmkat yi léegi dañoo wooñ ñëpp ñu dugg ci maire ñi dañoo yore seen moyen ñoom dañuy liggéey liggéey au niveau de de la base ci localité communes yi te nun dañoo am maison des éleveurs yi au niveau de commune kon foofu dafay am partenariat ak ñoom surtout aussi ak jigéen ñi kon ñoom dañu leen di appuyer pour que ñu mën a am ay coûts yi ay xar yoo xam ni xar yu góor la pour mun koo dugal ci gétt gi mais aussi ñu jàppale ñi nga xam ni amuñu ko woon te ñu bëgg a yar ñooñu aussi ñu mun leen a faciliter ñoom it naka la ñu koy amee mais boo amee ba pare aussi tamit diñu lay woon yow naka ngay def pour ko nga mën a jàppale keneen pour que affaire bi mën a yaatu mais aussi ñu mën a aider ñu bëri. Euh, gannaaw bu ñu sant yàlla julli ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi sant waa ay AIFER ak euh, l'association des maires du Sénégal di leen gërëm bu baax ndax initiative bi biñ ko xalaatee euh, ministre bi dafa waxtaan ak maire yi won leen ne li ñu mun a jàppale ñun ñëpp ñu soobu ci li nga xam ne lii moom moo soxla Sénégal tey muy lan muy ndawal bu doy te mu mu bañ a cher mais euh, maire yi jàppale jigéen yi ak xale yi ak ndaw yi ci ñu yar jur jur gu am solo ñu mun a am auto suffisance am mouton ñu doylu ci wàllu xar ñu bañatee jéggaani xar bitim réew pour euh, di ko defee tabaski. Euh, léegi ay fër commencé woon na ko bu yàgg ndax début bi euh, dañu signé woon convention ak ay fër dañu daan defar bergerie jox jigéen bi ñetti xar yu jigéen village bi yëpp ñu jox leen benn kuy. laadum wala tulaabeer ñu def croisement yokk euh, euh, xeetu jur gi ba pare ñu yar bu juree ñu jox ko seen beneen nawle loolu nag nekk lu am solo ba nga xam ne ñun directoire des femmes en élevage comme bi tuddee nañ ko passage du don xam nga lu baax boo ko gisee da nga koy roy ñu daal di ko rey def ko ci département yi def ko ci commune yi ñun fi mu nekk nii dañoo am calebasse de la femme en élevage dañuy semaine bu ne bu ñu dajalee seen xaalis dañuy jënd ñetti xar jox ko seddale ko seen membre yi ci biir commune bi léegi loolu buñ ko seddalee ba pare dañ leen di ñaan ñu assurer jur gi bu ñu assurer léeg-léeg sax day wàññi càccum jur gi léegi nag ñu gis ne maire Sénégal yëpp soobu nañ ci ñi bare soobu nañ ci euh, bi ñu ci sooboo nag ñi gis ci njëriñ njëriñ boobu nag mooy ñu bëggoon eh, maire Sénégal yi kenn ku ne na ci dugg rawatina nag maire yu jigéen yi nañ ci dugg ñu jàppale askan bi surtout que li nga xam ne lii président loolu la def ci plan Sénégal émergent bokk na muy autosuffisance am mouton kon tey war nañu taxaw tem jàppale jigéen yi jàppale xale yi ñu yokk jur gi ci biir Sénégal ndaxte man li ma mënul seetaan mooy senegal frontière yi ko wur yëpp ñu bari ci ñun lañuy ñuy màngaane bu ñu màngaanee ci ñun dañuy dellu ci seen dëkk yi jëlaat seen xar yoo ñu dundaloon Sénégal indi jaayaat ñu ko beneen bi dañu fiy ñëw dem seera jënd ay xar yu jigéen ñu yóbbu leen Mauritanie ñu am foofu ay doom doom yooyu ñu yar leen ba mu wàcc ñu indi ko Sénégal di ñu ko jaayaat loolu xel mënu koo nangu dañuy ñaan maire yi ñu jàppale jigéen jàppale xale yi passage du doom bi nga xam ne dugg nañ ci ñu ngi leen di sant bu baax dañ leen di ñaan ñoog ay fër ñu jàppante boole ci jigéen ñi puisque ñun suñu kuréel yëpp dañu taxaw commencé nañ ñu jàppale leen ñu yeggale liggéey bi man daal dama leen di ñaan maire yi fii ak euh, juróomi at bu ñu ti yàpp walla ñu jéggaani ay xar ay jur bitim réew di ko fi indi di ko jaay suñu naataango yi